pleinement du mois de juin nga xëy suba génneel leen ay incrimination yoo xamante ni kenn mënu la wax lan mooy fondement bi xam nga procureur bi muy chargé Ousmane Sonko hmm. dafa dem ci site Anita Diop jël fa ay vidéo waaw mais Bassirou Diomaye Faye kañ la mës nit mën a wax ni dafa def appel à l'insurrection dafa participer au financement du terrorisme hmm. dafa nekk dans des entreprises terroristes Bassirou Diomaye Faye Fadilou kayta ils sont en prison kii depuis euh, neuf mois daanaka kii depuis euh, trois quatre mois qu'est-ce que cela signifie oui tiens que ni bu ñu leen toppee ci logique bi mooy Pastef du am dans leur logique hmm. Pastef moom du am candidat maanaam pas candidat juridiquement parce que mën nga ku nekk prison sax day nekk candidat hmm. mais ku dul ku dul ku dul ku dul ku dul campagne électorale ah mais bu dee yow topp nga Bassirou Diomaye fay mais ça veut dire que tous les membres de PASTEF identifier mën nga leen a joindre si dossier Ousmane Sonko rek parce que soxla woo preuve yow bu yow te te qui est dommage mooy bone nee Bassirou Diomaye Faye clochardisation lañ ko toppee woon. démb le ministre de la justice française euh, Dupont Éric Dupont-Moretti. nee na tey voté nañ une nouvelle loi pour l'indépendance de la justice parce que il faut mettre fin à la clochardisation de la justice moom mooy ministre de la justice bu France il a utilisé le même terme que Bassirou Diomaye Faye nga toppee ko euh, euh, injure onze institutions nga xëy suba créer ko un dossier criminel ça veut dire que suba képp ku bokk Pastef képp ku bokk Pastef hmm. soo déclaré si wala mu yaakaar ni xëy na ci ci ci esprit te nee naa ko affaire de plan B boobu. sa stratégie la boo xam ni sànni ko fële. parce que c'est absolument pas dans. loolu la ñuy gàttandu nga bëgg a wax. mais amul wax maanaam ñu jàppee ni yéen a ngi ci débat wu xool nan la ñuy amee keneen ak ñu ciy tudd. ñenn non c'est li ci neex ci débat bi. mooy biir Pastef fii observateur am na. li ñuy en Pastef yëpp boo seetee musul am en interne. nee naa la c'est le parti le plus solide au Sénégal dissoudre nga ko déggoo démission. déggoo transhumance Pastef c'est le seul parti qui n'a pas de transhumant wëral ci parti yépp lool moo tax duñu transhumé loolu jaaxal nit ñi c'est un parti solide et ancré débat euh, plan B bi ouais. on ne comprend absolument pas ah, léeg xalal non non déggoo li ma wax dama ni la biir Pastef kenn jógewul Pastef xalal dama la bëgg a wax kenn doo gis ku bokk Pastef. cadre Pastef laa la wax. Ndoura Ndoura. kooku fu mu bokkee Pastef. musul bokk Pastef. yaa ngi tooñ de Thierno. non xam nga ñoom. yaa ngi tooñ. mais may leen ko may leen ko mu yeggal fu mu nekk noonu waaw may leen ma la bëgg a wax mooy. maa les élections c'est non li nga doon wax naan parti bi à l'interne. cette question liée au plan la question n'est pas posée. déggu leen ko débat kenn musul dégg est-ce que mës ngeen dégg quelqu'un qui s'est déclaré plan B. comme yeneen parti am yeneen parti d'habitude su rëmu yi mel nii amee da ngay gis gars commencé génn di lal ay plan oui mais am ngeen seen vie interne non non mën nañ nëpp yéen yéen la lanu Pastef moo leen ump ça veut dire que xam nga débat boobu ku ko génne kan xam nga débat boobu ku ko génne Diallo joob li mu doon wax Macky Sall les gens se déformé ses propos dafa ni leen Macky Sall genre bàyyil acharnement bi ngay dal ci kaw Ousmane Sonko parce que n'importe comment loo mën a def Pastef dina jàkkaarloog yow. c'est ça le problème en France déjà du information yi ma am. bien avant Diallo Diop di wax. ñu ngi woon ci ay manœuvres. xoolal boo ko waxee mu weddi. boo ko waxee mu ne la li ma la bu fekkee tey man loo faruñu. léegi ma am na ñu nekk RND. Hmm. duggoon ci Pastef commencé def ay manœuvres balaa Diallo Diop di wax. yàlla yàlla ma la. Bachir xam na ni. xam nga bu ko neexee Bachir Fofana. xam na ni. bu journaliste su toogee ba toll ci su dee li may wax amul yàlla naa tawte bu dee journaliste foofu la toll yàlla naa tawte xamal ni am nga problème sës si sës si jàngalu la lool. kan li mu wax dafa ni. yow sa bees bi. Birame Souleye ban poste la yor. yow kan ne yàlla na tawte. bi mu defaatee réforme bi passé. Hmm. ci lañ commencé postuler Birame Souleye Diop bu daan teg rek ñëw léegi. li ma wax nii xam nga yàlla ñu tiit maa ngi ñëpp bëri Sénégal comme moo amul perception ne Birame Souleye mooy numéro 2 ci Pastef avant devant Diomaye même sa xaar rek ma ñëw bi ñu defee réorganisation bi vice président yi mooy ñoo xam ne leen di écarté fee jël biram su lay teg kii sax mu tëdd Bassirou Diomaye bu Sonko absenté mooy président yooyu mooy daw ma fa dem mais xam naa li ngeen après kenn ki ñëw waa ji Ayib Daffé ay après ñu ñëw ko foofu la exécutif central exécutif bi nekk loolu la wax nii mënoo ko weddi foofu ah maanaam loolu wax orientation boobu pour la luñ ci jublu loolu. non nañ dem ba ci kanam am loo xam ne. ah déet bon non dafa xaw ma xam nga sa moom mu nga xam nga yow. malaise nañ ko nga nee la journaliste. bu dee da ngaa toll ci RND pour nga apporter une preuve que waa RND France ñu ngi def ay manœuvres déglu ma rek ma ñëw man de xaw ma man yi muy wax waa RND France sax man je ne les même pas. non ñun koy yegguñu fenn. yow yaa yegg fépp ce que je peux dire ce que je peux dire mooy. mais Amadou Suisse seen mais en Suisse rek na Suisse. waaw. am amoon ngeen fii bu ma wax la parce que xaw maa la koy njëkk a yëg. waaw bi muy waaj toj maa la koy yëgal. <laughs> di muy waaj toj. am na ay problème il récuse Diomaye Faye xaar amul xam nga sa problème. waaw bon dañ ko accusé benn moment dañoo déchargé ñu yoroon extérieur jël Diomaye Faye positionné ko foofu te à parti de extérieur dañoo convoyé fonds yi ni ñuy waxante dëgg tamit mais dama ne Diomaye moo def wala deful. benn fonds non parce que. seen cotisation était alimenté par des fonds envoyés mais fonds yooyu fu muy jugee fan lay jugee. fan lay bàyyi ko nga ne bitim réew. fan non bitim réew dafa yaatu. fan waaw ñaan ñaan waaye mën nga ma may. non ko nag na ñëpp déglu. nga fexe nag. ba buñ wax teel voilà bitim réew dafa yaatu. defal naa ko rek yow. teel da ngay tey. Pastef xam nga nangul naa sànq en 2015. oh. oh, oh. bitim réew. yaman ci bitim réew ma dicté pas une je parle sans mauritanie. très rapidement mais ma ñëw. mooy gan gi mooy gan gi nag. ceeb waaw même bu dee gan gi léegi pour la lekk quoi éclaircir la lanterne des Sénégalais qui nous suivent. Amadou may ma tuuti. Mm-hmm. xam nga nangoon naa sànq Abdoulaye Daouda bi mu génnee ministre de l'intérieur 2015 directive ne parti bu nekk da nga andi say financement ñu wane ko parce que dafa méngoo ak sart boobu wax dëgg yàlla ma toog Walf Fadjri man félicité ko boobu ci émission ma def 2017 Walf Fadjri ci koor gi. mais xam nga ci topp nag après. mooy xaalis bi Pastef di génne dafa jéggi dayoo fu mu jógee. logistique bi mu génne dafa jekki dayo fu mu jógee yaa ma dégg sa déet xaaral defal ndànk rek léegi nag toog nañ dégg Ousmane Sonko mu ne soxla nañ dix milliards xam nga loolu moom dégg nga ko mu wax ko en deux mille dix neuf xam nga vingt après la présidence soxla nañ deux mille dix mille pour dem campagne en deux mille vingt quatre xam nga mosoo dégg Abdoulaye Wade wax loolu mosoo dégg Macky Sall bi muy dagal baatu réew mi mu wax loolu benn opposant Sénégal mosul wax ne soxla naa dix milliards pour campagne c'est pas les réseaux à l' ñan la de Pastef non est-ce que identifie nga réseau étranger yooyu euh, réseau yooyu noonu ñan ñoo ko incarné. le président de la république vous parle d'islamisme. bu. dégg nga. vous parle d'islamisme. d'islamisme. oui d'autre part d'autre chose. non non non xaar xaar. déggu ma déggu ma li xaar da nga ñëw de. non déggu ma dama dégg. Amadou ah da ngaa mel ni ku dégg. mu ne le président de la république. yow dégg nga ma waxal ba pare Amadou ma wax. le président. Macky Sall a parlé de réseau d'islam. non moom laa wax waaw Amadou. oui xam nga ne nga ma waxal ba pare doo may ma wax. dama teel damaa ragal li may wax. teel man damaa ñeme li may wax soo ko daf pa ayte. déglu ma dama ne la defal ndànk. yow am na loo xam ne yow su ma koy leerlu du yow laa koy laaj parce que eggoo fi ñu koy waxtaanee yow. fan la du sa niveau d'information. da ngay il faut être humble aussi. dans la financement yi fan la bàyyee ko. non dama ne ñoom. dañuy toog fii ba si yàgg soxla xaalis bu bëri léegi ñaari fan ñu génne ko. loolu mosul gis si monde bi laa la wax de waxuma la Afrique. fu mu xaalis boobu di bàyyee. mais may ko may ko rek. dimbali ma may ko defal ndànk defal ko rek. buñ ko def waaw mais foog nga daaneel nag. mais on a pas tout le bu daaneelee daanu bu daaneelee rek daanu. Ah. boo woowee Jomaay yéeréewu ma ko fi mu nekk de mais pour man on doit observer une expectative prudente par rapport à tout cela parce que. am na lu suspect. mooy xaalis bi bëri na si ñoom. jéggi na doyoo. moo yaa may dégg ci contexte ban ñaata la waay. nous sommes un ah, pays pétro-gazier ay Ousmane Diagne ñoo koy ñoo koy. Eh, eh. ay ay ay boy bi nan la tuddati. sama da ngay daanal ma dem ci. kilifa ay Aliou Ba ak ku mujjee kenn mujjee jàpp kilifa. ay Taleb Sow xam nga boo kilifa boo connaissez Kémi Séba que vous devez connaître bien xam nga Kémi Séba que vous devez connaître bien yow xam nga Kémi Séba il que un certain George Soros uh-huh. bi moom Open Society uh-huh. parrain de Oxfam uh-huh. yaa may dégg moo créé printemps arabe bi taal Égypte ak Tunisie ak yëpp ma wax kaa wax la leen. non mais ma ñëw. kaa ma rek kaa wax la leen. Sonko. c'est même George Soros. Sonko a contracté avec Oxfam. c'est même George Soros. dëgg nga rek fenal nañ ñu ñun yaanaa maax ne def mais il a posé avec vous te bar mais war leen nangu photo ak moom lu tax bu ngeen di def kuy défendre Afrique wala photo ak George Soros George Soros c'est yaa ma dégg c'est un impérialiste George Soros dafa nang dafa nang c'est pas un profil recommandable pour Jalamar dafa nang ngeen di xeexal askan bi non non dafa nang dafa nang moom rek la ngeen ci continent taxawal foofu taxawal foofu pour wax ni la Sénégal yàgg nañ ci manipulation ak fen kaay ma kaay ma démontrer la ko George Soros ah. dafa ñëw fii tournée africaine. waaw ñëpp di daw di dem ci moom xaaral rek. il a demande à nous voir ñu ne ko ku ñu soxla. even suñu président de la république bu ñu soxla dafay déplacé wu ñëw boo ñu soxlaa fais le déplacement et tu viens dans la banlieue. George Soros la ci boppam impressionné ko. ak koo mën a doon attends rek ak koo mën a doon ba des góor jigéen. Hmm. nga ne danga maa bugg a kilifa. dinaa la ne boo ma fekkee sama dalluwaay xaaral rek. dinaa la recevoir. soo yegsee li ngay wax dinaa ko déglu. li ngay wax dinaa ko déglu man tam la ma lay tontu mu nga fa dama ne la. quand les gens disent que ni ay Oxfam ak ay jàppal Baye Johnson dañuy financer Ousmane Sonko man kilifa je dis que ni c'est pas vrai parce que fenal nañ ñu ko. c'est l'État qui manipule. c'est l'état ñoom ñooy jël ay journalistes yu xam nañ leen. dama dama journalistes yu bëri campagne de diabolisation. les structures yi nga xamante ni dañuy taxaw di xeex seen intérêt yi. may ma jaxase maayu Sénégalais yi. loolu dëgg la c'est pas vrai je le dis ici. li ma wax nii dëgg la. lu dëgg mais xam nga sama témoin ak sa femme. cotisation passive ñëpp gis nañ fi muy jaar am na ku ñu dàq bay liggéey kan dañoo dàq kan parce que kan dafa contre góor jigéen kilifa baal ma Eliman kan Eliman kan dañ ko dàq parce que affaire góor jigéen yooyu noonu moom àndu ci ak su femme laa wax de xaar rek kilifa li tax ma salte mayen laa lay wax léegi open society source source boobu nga wax coiffé ak su femme. soxor sax dañ koy jiñ loolu. yaa amee du ma ci dinaa ci ñëw après léegi nag li nga wax tam ba ma ko de c'est de bonne guerre ah boo sonalee état yow. est-ce que bu neexee ñu jaamu. damay ñëw waaw may rek mu daal dañ ko dund dañ ko dund Thierno mais ma il faut nga admettre mu rebondir ci li ngay wax ma ñëw ci Pa Moussa ak Pa Assane parce que ci émission bi lañ bokk ah, ma ngay nelaw sax oui ci li wax ci financement yi ak par rapport ak Diomaye Faye je pense que moom dafa dend euh, ay journalistes Pa Assane ak Bachir Fofana je pense que am nañ déwoon ah, ba tey am ngeen am ngeen am ngeen déwoon déontologie xam nga kii li muy wax nii c'est des accusations très graves mais may ma buñ porté plainte ñàkk fay. porté ma plainte su yow moom boo loo <laughs> mën a wax yow. yow de déggoom yow moom ah sincèrement boo waxee Pastef bu porte bu la porté plainte ma démissionné. parce que on va pas vous donner de l' importance. ah bon ah, ah, bëgg a wax damaa bëgg wax dafa wax ay mbir. on va pas épiloguer là si longtemps de. man duma mën sax parole. mooy sunu gan waay da nga ni Bassirou Diomaye Faye moo doon centraliser. les fonds venant de l' extérieur. ñu poser la benn question. les réseaux extérieurs. waa les réseaux. léegi ñu ne la. Ah. est-ce que mën nga ñoo citer benn réseau ak ban pays. attends qu'il y ait un développement progressif de la vérité. bul bul c'est-à-dire boo waxee li nga wax ba pare ma poser la une question. réseau bi ban la réseau na tudd. bu dee financement bi. da nga xam benn pays bu ñuy financé wala benn organisation ak fan ban dëkk la. je vous ai dit Oxfam. Oxfam xam nga lan la woon. c'était en deux mille seize xaw ma ñu ne oh, homosexuel déglu waaw waaw déglu ko rek da ngaa laajte cerno cerno soo laajte dara bàyyi ko moom. mu xam nga li muy wax ni lan la. mooy 2017 organisation bu doon jàngal député yi député yi laa la wax. c'était je pense autant que sama mémoire revenir ma ñu leen doon forme sur la fiscalité. ou des histoires de budget. non c'est sur les ressources naturelles. déglu ma rek moom laa lay wax déglu ma rek. et c'était pas pour les ma à l'intention des bu la neex jël ci. loolu la ni Ousmane Sonko da cee participer ñu fay ko xaalis moom loolu la lay jéem a junj de. tey jii boo ko laajoon montant bi. ak réalité bi sax du la ko wax. il faut me permettre de léegi nag man li ma intéresse am na ma ñëw. non am nga montant bi wax nga développé. ndax am nga montant juste le montant. communication. day dafa dem Dakar Actu laajte ma ñu jox ko sama numéro mu woo ma. ma interpellé ko samedi mi ngi may dégg pour bu donner une preuve waa Oxfam mi may dégg elle est externe liggéeyul Oxfam cabinet la buy liggéey Oxfam. oui dama ko ne da ngaa sangil dugg sama liggéey mu ne ma jéemuma ko parce que sañu ko de samedi la bisu samedi ci la may xamale ne moom externe la. waaw xam nga lu ci teg. sama càmm bi doo ma dimbale damaa am ngénte maam wax ji koy daw. ba fexe Kaba gis nga Oxfam li may ma après coow li jëmale li li li Amadou Ba wax. mais ça ne répond pas à la eh, question. may ma rek may ma eh, euh, de. kii li la bëgg a wax. bàyyi bàyyi dina ko wax dafa am ay demandes. wuy ma waxal yow sama bàyyi ko moom mu wax ma xam. dafa am ay bu ñu wax waaw waaw ma xam nga man li ma man mun ma fee nekk di wax waxi Oxfam mun naa wax fii ba suba mun naa la cay wax kilo. parce que daf bàyyi ko rek xam nga ceeb bi naa la déglu ñaay waaw bàyyi ko mu ñëw bàyyi ko mu koy jiiñ keneen. bàyyi ko mu waxal boppam eh. non si si si kilifa penc digg kilifa digg mi la ñu ne Amadou Ba mu ci digg penc mi bàyyi la ko mu waxal boppam. xam nga xam nga li mu lu tax mu doy waar et dangereux. état du Sénégal fii def nañ fi collecte d'argent. deux heures du matin ministre de l'intérieur génn communiqué ni maa ngi leen di rappeler ni si vous recevez de l'argent de l'étranger des étrangers mën nañ leen a dissoudre ma ni ko da ngaa yàkkamti on était déjà au 1er janvier au 2 ou 3 xaaral ba le 31 ñu indi sunu sunu kii 2015 2016 2015 la ñu reconnaître parti bi 2016 17 18 19 20 21 22 suñuy état financier mu ngi ministère de l'intérieur mu caché ko yow mën nga gën a xam Antoine Diome mi nga xam ni luy niru Pastef lay bañ a gis mu am ay réseau de financement te di dissoudre ñu yow nga ni yow tu as des réseau suñ la laajee nu mu tudd nga ni xaw ma ban dëkk la nga ni xaw ma bu ñu waxee nga naan non j'ai des informations d'après kii Bassirou Diom lii li ngay wax nii. c'est en dehors de ta déontologie. mais Amadou vous me prêtez quoi aussi je passe ailleurs non man prêté wu ma la dara xam nga yow tu fais comme. ce qu'on appelle nga wax sénégalais yi dégg nañ ko Amadou li muy tontu sénégalais yi dégg nañ ko ñoom dinañ apprécier sa bopp mais bàyyi ko mu yeggal ndax ma mën a ci Pape Moussa xam nga xam nga xam nga Thierno Diop me ñu ñu ñi ñuy wax les singes les singes intelligents xam nga gars yi. <laughs> non du saaga déglu non non du du du par rapport ak singe bi dama la bëgg a wax. gis nga singe mën nga ko jàngal mu rekoon téléphone perroquet mën nga ko jàngal ba muy wax alo et cetera. maanaam boo boo gisee perroquet buy wax alo dangay ngay defoon ni elle est de fonction ah, vocale kii li ma la bëgg a wax foofu mooy. day li muy def c'est dangereux et pourquoi parce que ki mu dendal journaliste la xam na ni lii c'est très c'est très c'est très c'est très banal c'est dangereux pourquoi Ousmane yow tu lances une accusation mais derrière mënoo ko étayer amoo document nan nga réseau bi tudd nan la montant bi tudd ban banque la jaar Sénégal nan nga fiy dugalee xaalis kan moo ko dugal